fii la moo moo moo waaw aca moo ñu xool ñu jàkkaarloog tele bi parce que yéen ay mbër yu mag ngeen ñu jàkkaarloo gaa yi xàmme leen moo gis nga kaaw ah. ah, naa ko gis gis naa ko kii paala barke alxuraan si combat ma tey deux minutes mooy yàlla bàyyi bëre prix dib laa lay def maa la man maa la ëpp doole man xale bu ndaw laa ittee ak ñoom général Mbalika du daan du taxaw yow barka alxuraan. waaw salaamaaleykum ginnaaw yàlla jul si la sant ma ñaari waajur maa ngi ñu fi teew ñëpp di sant sama boy ma dal quoi ñoom Aliou Ngaaka xam nga ñoom Mame Mbaye ñoom sama boy ma dal yëpp di sant di woo xam nga waa Bawol gi yëpp xam nga di sant booy Gaynde Male ñoo ko sant bu baax xam nga te suñu doon la wax dañ ko doon yàgg roy xam nga suñu baba booy Gaynde Male kii nag li muy wax nii ay waxi dox la ñu wax boo génnee fi dañ laa bëri dañoo dof yaa ngi wax boobu dafa naqari wax boobu dafa naqari boo ko déggee mais xam ne dëgg la parce que saar yi ñoo tax ay waxi dof ay man xelal la ay man paa nga nangam naa kii boobu xam naa yëpp paa la waxi dof la. moi je suis ba ngay bëri sax bëri wu ma. kooku man maa ko mën na loolu sax moom. Modou na alxuraan su ko maa matee deux minutes yàlla bàyyi bëre. maa ah, la foo ko teg. maa ko mun xam nga ko moom. ki la kaa xam am naa jënd. prix prix. dafa baax dafa la ni ndaanaan la li tëntoo ma ndaanaan bi ak comment bu mujjee deux minutes yow dafa baax. Modou Mbaye kii bu fekkee daa bëgg a def comédien ah, na dem si waa Mbarodi def comédie barke Serigne Saliou Mbacké li wax mu xam nga ne kii fu ko maala mën conteneur si moom maala bu baax ragal day jéem a monte fit ni mbooloo mee mu yokk ab ragal bu mag la da nga xeex ak man sama combat musul yàgg di nga xeex ak moom. kii ba ngay duma daan ko soo fexe moo doon nga billaahi. Alxuraanu kariim xeex ba bu ko wax kii bu taxaw mar cinq minutes sans zone xeex cinq minutes laa de ah wàcce wu ma ko abi day yëkkati loxo. wala kaan ko si ka taxaw cinq minutes xeex. Sambal mooy Sambal moo doon nga wax cinq minutes xeex. une minute Modou Mbaye kii du xeex xam naa li muy bëre xam naa ko baax ab ragal la barki Serigne Bamba ragal ragal la. daaf laa dëgg ragal dëggu fa du waaw woote waale di du yëpp di bëggee waan téléphone Salaam na ñëpp génn jàppal seen doom moo yaraax maris fépp moo yaraax moo yaraax maris fépp di bëggee waa ara du la mafia bi yëpp e moo man maa la benn bu gars yi jàppale Kaw Cissé doom Kaw Cissé bu mag gars yi dañ ko takkal mu moo voilà mu aykoon moo mu xool du agressé gars yi jëm ta kaw naka gars yi jàppale aja wooteel waaw Modou Mbaye maa ngi waa Bawol gépp xam nga maa ngi woo waa Réfal waa réew ma waa Kër Samba Kan tul xam nga na su maa ngi woo waa Rëbës sama sama fa may yeewoo esaay maa ngi woo waa Rëbës gépp di wax ñëpp di woo ñëpp ñu may ñëpp ñu may jàppale wax ne combat bi sama bëgg laa sigar barke alxuraan moo la xee doo gëm maa mën fu kom aja ñu dem yóbbu leen yóbbu leen